la la la la la la la la la la la la la la la la Bonjour chers amis et internautes. Nous avons le grand plaisir de vous accueillir dans cette émission spéciale dédiée à la journée des droits des femmes. Il ne se passe pas un seul jour où une histoire de femmes, les violences qu'elles subissent, leurs droits ne soient relayés par la presse. C'est pourquoi aujourd'hui, en cette jour spécial du mars, nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette émission spéciale. Nous avons comme invité Madame Aïssatou Diagne, responsable des cadres du Parti socialiste wala boog vision socialiste Madame Diagne ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar. voilà Tata comme ni ma ko waxee ci sama présentation. il ne se passe pas un seul jour boo xamante ne bi ñu dégg am na jigéen dossier boo xam ne c' est par la presse dina jig jigéen bi ñu man kenn ku nekk am nga sa façon booy fêter 8 mars mais man tey dama bëgg ñu wax ci 100 pour cent femmes la violence surtout basée sur le genre yow ban jàngat la ci am naka la ñuy def ba arrêté loolu ak sax lan moo waral loolu wax. waaw Fatou ñu wax dëgg la boo taal. télé boo taal li nga njëkk dégg mooy femme bu ñu violé femme bu ñu violé xale bu ñu sàcc loolu ngay dégg ak pédophile lu ne métti na lool lool lool te surtout nag année 2010 dafa accentué te dans tous les coins des régions surtout dans dans les régions euh, vraiment euh, éloignées vraiment y a eu beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de de de viol y a beaucoup y a eu beaucoup de euh, de de violences faites aux femmes aux enfants aux jeunes filles. métti na lool lool lool. et et je pense que sax loolu moo gën a indi parce que association dañ ko yàgg xeex fu nekk tey jii lool dañ ko def délit dañ ko defoon délit boo defee loolu ñu daan leen tëj cinq ans balaa cinq ans génn wala dix ans ba sa matal ba mujj gi daal mu métti lool je pense que l'État a pris des des résolutions je pense que loolu mënu di tey cette loi là on a on a voté sur la criminalisation et le nga xam ne que la la nga xam ne que même même ça a été promulgué ça a été promulgué en, en janvier 2020 euh, et a été voté en, décembre et, je pense que cette loi elle est importante parce qu'elle est dissuasive d'abord dissuasive d'abord mais cette loi là il faudrait euh, assurer sa mise en application parce que voté loi c'est quelque chose mais appliquer loi c'est autre chose kon tey nan la ñuy mën a def ba nga xam ne lépp loo xam ne nee nañ diw dafa violé wala yàppe dafa nan lañ Euh, la difficulté sera dans la, dans, dans la preuve, dans la preuve de, de, de, du viol, dans la preuve aujourd'hui de, de, pédophilie. C'est de prendre des mesures drastiques, parce que loolu dafa metti metti na trop am nga du sa doom ba mu màgg balaa muy sëy ñu ne violé nga am sa jabar ñu gën dem marché ñu kan ko violé lépp ne am na fi daal dafa metti trop et je pense que il faut que tout le se lève vraiment pour lutter contre ça je pense que l'État déjà moom def na def na def na sa partition parce que def mettre na une loi ici et il faudrait que maintenant que képp ku mu dal tam nga ñeme nga ñeme wax ko parce que ñu bari dañu dañ koy nëbb day gis ku ñu viol du ko wax gis ku ñu martyrisme du ko wax il faut que tey les femmes aient le courage quand ça se passe de le dire de le dire là il faut dire pour que l'État puisse sévir pour la justice puisse aujourd'hui faire son travail exactement ci loi boobu laa doon ñëw euh, sama prochaine question ci loi boobu la doon jëm si parce que fekkee nañu loi bi on l'a votée à l'Assemblée nationale comme vous avez dit euh, voter une c'est une chose l'appliquer bi kañ lañ koy xaar ndax ndax dafa war a doon loo dafa war a mën a gaaw parce que comme li ma la wax rek chaque jour chaque instant yaa ngi dégg violé nañ ko rey nañ ko surtout nag si biir ménage parce que léegi jëkkër yi ñooy rey jabar <laughs> <laughs> waaw xam nga comme tu as dit ah c'est-à-dire bu ñu ko voté li gën a am solo mooy application la application moom ñu wooyu la mise en œuvre te tey jii euh, je pense que bi ñu ko voté euh, le président Macky Sall l'a promulgué donc su ko promulgué rek ça veut dire que tey war nañ ko mën appliquer donc premier cas yi ñëw rek justice war na ko mën jël ku mën ko appliquer récemment y a eu ba ci avant man démb j'ai passé sama journée di lire loolu sama daan ma ko lire mais dama dama tiit bi ma tiit bi ma liiree euh, ay 17 ans ay 16 ans ay xale yu am 15 ans nekk terminal di jàng ñu naan di leen violer ay man vraiment c'est atroce c'est atroce et je pense que là euh, heureusement que les personnes commencent à porter plainte parce que j'ai vu que avant-hier il y a eu des portes euh, des des des une jeune fille qui a porté plainte bien que c'est un peu tard parce que. pour man bu ñu la violé da nga war a da war a porter plainte bul xaar ba ñu bu ñu la violé ba nga enceinte ci bay waaj a accoucher pour man c'est tard il faut que femmes xam ne que ñu am courage bu leen dalee bu ñu rus parce que ndogal la dafa am na nañ ko affirmer wax ko ñu mën koo faj parce que bu ñu koy nëpp nëppal nii ba kenn du ko yëg nga dem après mu nekk un secret de famille déedéet parce que pour que ça cesse il faut que la loi puisse sévir pour que la loi puisse servir, il faut qu'on puisse en parler. Et en parler, c'est aujourd'hui trouver des solutions. Donc cette loi-là, elle ne peut être que lorsqu'il y a des cas, et des cas révélés. Parce que les cas cachés, état monopole, justice monopole. Et, et je pense que Tilimayaka, cette volonté de l'État-là de servir, à mon avis, si, si des, des, des, des, cas commencent à se révéler et officiellement on en parle et c'est relayé partout sur effectivement foofu lay remontiré cas nga xam ne kenn du ko révélé parce que comme li ñuy wax rek ñun Sénégal dañu mën a nëpp nëppal dañuy wax ne peut-être c'est dans une famille ou bien c'est dans un quartier dëkkandoo bokk la comme on a l'habitude mm. kenn du révélé cas yaakaar naa li lor xale yu jigéen ñi tam loolu ci la bokk mais sama prochaine question dafay relative ak toujours la violence conjugale parce que tey jigéen ñi est-ce yaakaaroon ne comme que tey journée de la femme la dañ leen di défendre mais aussi dañ leen di joxaale ay conseils mm-hmm. est bi ñu leen ay saaga ay dóor waru ci mën a te lépp nekk na loo xam ne ci début bi lay doon su fekkee jigéen bi am nga fulla xamante ne nii sa conjoint mayoo ay saaga yu sew ak ay dóor yu sew yaakaar naa du yegg ci ay rayante wala bu ko defee nga teel ko ko dem waxi ji ban conseil ngay jox jigéen ñi côté boobu. Euh, voilà Fatou man euh, li may wax jigéen ñi mooy xam nga sëy euh, pour man du du violence pour man sëy du du naqar ah man de sama yaakaar sëy bànneex la man pour man bu jigéen di génnee kër baay ak kër yaayam góor fekk ko fa mu takk ko yóbbu ko ci këram pour man ah xanaa de pour bànneex la te pour man de xanaa mëggal moo ko lal te normal li mëggal lal xanaa boobu am na violence. kon man dama naa euh, ci biir couple bi dafa am yenn lu ñuy wax a def comme règle comme règle de vie. Hmm. règle de vie mooy gis nga euh, ñun dañu yar ci aada te aada bi ñu yar mooy le respect mutuel cest soo amee jëkkër da nga ko respecté cër bi la bi la sa jëkkër jox jox ko ko bi la sa jabar jox jox ko ko bañ nañ parce que bu ñuy muur jigéen dañ dañ dañ la naan joxuñ la kuy kuy kuy dóor de joxuñ la koy saaga de soo mu dee ba mënatoo am. mënoo koy yokk delloo si loolu déjà message bu fort la mooy ne que ki la jox joxuñ la pour nga maltraité ko dañ la ko jox pour mu sëyal la jural la ay doom ngeen am bànneex ñu respecté mu respecté la léegi nag mbir mi pour man euh, c'est au début gis nga euh, dans les ménages ci sama yaakaar am nga ku nekk mën na cee wax mais ku ne yaa xam li ñu ci am ci say expérience mais pour man dans les ménages il faut que euh, souvent ñuy muñalante mënanti mooy euh, ñu éviter aussi wax ju bari ci biir ménage c'est-à-dire que yaa ma wax maa la wax yaa ma ne maa la yaa ma def maa la def c'est-à-dire que quand ça commence dans un ménage ñu naan pour ñu sa kàddu rek da lay yore ay effectivement et même dans dans c'est pareil même dans les ménages sa jëkkër am na droit ak devoir boo xam ne mu ngi seq sa jabar am na droit ak devoir boo ñu seq yaa les chartes donc nañ respecté chartes yi ko respecté parce que ki la jural ki la jural doom man je ne je ne comprends même pas ki la jolantoo ki lay toggal di la yàkkal la defal lépp lu neex daal ci lépp ci biir nañ wax ay jigéen noonu nañ ko wax na xam nga yu kii daal yu yu baax yi kooku lan nga di ko dóor c'est-à-dire man na nan la mën nekkee nan nga mën a jigéen di ko dóor muy sa jab muy keneen loolu mënul nekk parce que jigéen ci boppam mooy sa lépp parce que tey jii yàlla moo def ne jigéen booy seet tey moom mooy laboratoire vie moom mooy laboratoire vie parce que tey képp ku judd jigéen na ko jur donc jigéen mooy ki nga xam ne pendant neuf mois moo koy ëmb mooy muñ ba doom judd bu doom juddoo mooy sang mooy boot bu juddoo mooy toppatoo ci kër ga moo fa nekk yemuñu foofu de jigéen ñi ñu génn takk seen ndigg di wuti ñu ngi ci marché yi ñu ngi ci fu ne dañuy jënd ci jaay dañuy dañuy dañuy dem ci fóot day faatu faatu dañuy dem wuti ay légumes dañuy dem. jox ma lii ma tekki lii dem jaay ba pare ñu ñëwee def tout pour teel a ñëw topp seen añ topp seen reer bu ñu xëy defal ndékki donc dañuy assurer et la maison et également ce qui va venir la maison mën nga nekk dañuy bàyyi góor ñoom ñoo indi parce que bu ñu bu ñu moom dañ naan ah sa góor moo la war a du gi moo la war a yor moo la war a wodd moo la war a solal moo la war a dëkk dëkkoo la mais tey jigéen dañ leen déedéet dañuy dem jàppale suñuy góor parce que dafa metti fa metti benn góor yor lépp mais nag dañu am yërmande jigéen ñi bu baax a parce que metti na war metti na effectivement dégg ngeen ni sama tata kon nag chapeau à la femme ñun ñooy lépp ñun ñooy dem si ñëw togg ñun ñooy dem uti ay bagage jéem a def commerce ñun ñooy dem bokk ay natt yi pour def bëggal suñuy waa ay doom suñu lépp bàyyeetuñu lépp suñu góor yi kon suñu góor yi di ñaan ngeen di ñu jéem a comprendre tuuti jigéen nag matul damay dégg mag ñi naan ni suñuy wen sëggee noonu la xel yi sëggee waaye yéen tamit ngeen di toléré tuuti di moytu violence yi ci biir kër yi waa léegi damay rebondir si damay dem si autonomisation des femmes daanaka nga ci sax bi nga waxee xëy di dem uti wala cof nga ci mais tey yéen a ngi nekk ci cadre xam ne mun naa ne yéen ci nguur gi mm-hmm. tey yéen euh, décision ngeen jël pour jigéen ñi autonome kenn dootul dépendre si góor yan décision ngeen ci jël wala yan ngeen ci waaj jël waaw Fatou euh, je pense que autonomisation des femmes loolu lu yàgg la du lu bees je pense que état bu ñëw rek def na ci benn benn fan tey boo gisee depuis Senghor boo gisee Senghor fonkoon tey les femmes rurales loolu tax parce que amoon na émission bu ñu woowee nappkat yi ak sàmmkat parce que dañu xamoon ne que le développement est à la base et à la base du développement c'est la terre et la terre c'est les femmes aujourd'hui ñi toppatoo terre bi si sont les femmes ce sont pas mais la difficulté ci femme bi mooy ne que l' à la terre parce que xam nga tey wax nañ ne que def nañ kii bi ne jigéen mën na yor mais c' est jigéen bu mu ne man maa moom teer bi bariwul kon il faut tey ñu favoriser que jigéen ñi ñu moom seen terre parce que ay béykat lañu ay sàmm ay nappkat lañu nañ leen jox terre yi ñu mën nekk ay propriétaire di ci mën a liggéey autonisation bi aussi mooy également ci financement bi ci financement bi. man vraiment euh, barki démb dama dem fekkee DER mhm. am entrepreneur rapide phase 2 ma demoon dem ñaaju et man c'était la première fois vraiment c'était la première fois euh, ma dem fekkee euh, Serigne bu président doon doon doon présider et di di jébbal deuxième financement yeeg yooyu mais bi ma gisee ñuy def les pronostics ak résultats yi mu gis ne que ne que soixante quinze pour cent des femmes ñoom ñoo accédé ci ci financement bi ma kontaan et puis ma gis ay dama dem sa ba découvrir si ay yoo xam ne des entreprises yoo xam ne pour man c'était des hommes qui étaient à la base et que ces grandes entreprises là ay jigéen ñoo ko yore ma kontaan ma ne kon ça dire que dëkk bi mu ngi avancé par rapport aux droits des femmes par rapport aujourd'hui à l'accès des femmes au financement par rapport à à à moi je ne dirais pas égalité mais par rapport à la prise en charge des aspirations des femmes ma ne kon ça veut dire que am nañu pas bu ñu posé mais ñu ko continuer parce que continuer ko booy dafa am deux types de femmes Fatou am na femme boo xam ne moom dafa jaay jaay wala mu dem ci boroom jëmbale ko jox ma 10 000 jël ma jaay bu ngoonee ma daal di lay verser jël sama bénéfice et cetera et cetera man femme ñun laa ko tey jii ñu gën jël en charge donc man dans cette autonomisation là dans ce financement la plutôt que les gros financement dina bëgg ñu gën a financer ces femmes la en microfinance en microstructure et que ñu xool ñu leen mën a moo tax man dama toog ce matin ma ni euh, c'est vrai que effectivement yaa ngi bàggee ko ça c'est sur le volet santé et autres mais il faut également léegi mën a développer le volet communautaire le volet Euh, communautaire ces relais nga xam ñoo dem xool xool famille dagale leen seet ñu leen jàppale et aussi les former parce que Fatou aussi buñ ne auto autonomisation y a un minimum di connaissance xam nga même boo jàngalee am na loo la ci nu ñuy wutee nu ñuy wutee xaalis mooy su ma jëndee lii ñu koy jaayee ak lan mooy jàng il faut du jàngale tuuti nooy nooy nooy téye li nga yor et donc dans dans ça. dans cette organisation-là, il y a un, mm. grand volet d'éducation et de formation. C'est important. Donc il faut qu'aujourd'hui, que l'État également développe ce volet-là. Vous ne pouvez pas y aller association l'État a fait le volet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un ministère de la femme. Je pense que dans ce ministère-là, je sûr qu'il y a des structures qui sont chargées normalement de des femmes. Il faut qu'il y ait ce volet-là d'alphabétisation, regrouper des femmes, même qui sont cent sans emploi qui se débrouillent jaay seen caafa seen leneen femmes yooyu ñu xool ñu leen groupé daal leen jàngal jéem leen jàppale ñu am benn projet defal leen benn financement topp leen topp leen ba ñu ba ñu man loolu lay xaar maintenant c' est vraiment aller au-delà du financement c' est c' est carrément aider ces femmes là à auto parce que auto-entreprendre am importance munoo mën naa jox tey cinquante mille cent mille francs ma financé dem sama yoon ba la fa doo koy lekk parce que Fatou yow bu boo fekkee dama jox trois cent mi ne la na ma ko na ma ko fay fekk un an bu bu ma la ko jox yow yaa ngi am benn loyer boo xam ne six mois yoo fay la doo ko fay sa doom sa njàng kii bi doo ko fay da koy dem fay say say bor mu toog donc il faut que qu'il y ait su suivi derrière ce suivi là veut dire que dañu lay jàppale kii y ait des relais communautaires et qui sont actifs dans les financement bi génnee ñu laaj qu'est-ce fait nañ dem jënd li jënd li ñu xool partage des bénéfices def ni def ni def ni que def ko sous forme de groupement bu ñu bàyyi rek mu groupement féminin ñu bàyyi ko au quartier nañ ko nañ état ko dugal loxo pour jàppale sax man loolu laa gis man daal je suis sensible à ça parce que comme je dis euh, jigéen moom ah dañ ko war a sagal jigéen parce que ku ne am na yaay Fatou ku ne am na sœur am na jabar te jabatam sa xarit la wala kon tey ji jigéen mooy lépp lépp lépp góor kon tey ji et je pense que ça man j'ai remarqué que su gisee tey ñuy avancé c'est parce que quelque part les hommes nous aident parce que fekkoon tey dañu bëggoon ne dañu bëgg autonomisation des femmes parce que jëkkër ngeen doo dem doo dem ou dem bu ne la damay dem te say tas est-ce que c'est qu'on recherche c'est pas ça on recherche un équilibre entre l'homme et de l'égalité moi je dire que affaire bi dañuy waxtaan ba jubóo rek parce que bu dee jigéen mu ngi dem wuti pour indi ci kër gi dafay neex góor parce que dafa dafay yàq na poosam aussi di ko jàppale et puis affaire baax boo tey boo naan def lu def ñu def lu gën a je pense que les hommes l'ont compris même je pense que aussi il faut se dire quand même il y a beaucoup d'hommes aussi qui aident leurs femmes am na ñoo xam ne da ngay def des fois ay médicaments sama jëkkër moom ubbil centre de couture bi sama jëkkër moom ma jàngal école moom ma yóbbu ma dem jàng école sama jëkkër moo financé projet moo ma jox billet ma dem ma dem Dubaï ñëw indi marchandise bi ma magasin et cetera donc je pense que aussi nos hommes n'ont pas laissé les femmes libres à eux il faut qu'on se aussi que dans, dans cette histoire d'autonomisation il faut tenir en compte euh, la participation de nos hommes dans ça du dichotomie ànd la ànd def la ànd defar la foofu lay neexee man dama naan ay partenaire lañu ay partenaire et la femme ay lañu parce que comme yaa ko wax sànq suñu bëggee dem liggéey suñu jëkkër yi bu ñu bàyyiwul du ñu dem donc wala bu ñu ko xëccoo ñoom sëy bu tas da ci am te yaakaar naa sant sant ñu ñu loolu sëy la sant ba tax na résumé nga voilà une question relative à mu nekk virus bi nga xam ne dugg si ci réew mi euh, ñu am ci 4 cas mën nañ ne sax 3 cas ndax benn bi il est complètement guéri ban loo ci ban conseil ngay jox Sénégalais waaw dëgg la Fatou xam nga kawoon naa bi mu nekk effectivement loo xam ne dafa dafa nëbb effectivement jox joxe jóge Wuhan jóge Wuhan et euh, di tas ba egg Sénégal ñu am ci quatre yoo xam ne ndeysaan ay ñu nekk euh, kii ñoo koy waaw amul benn cas boo xam mais c'est quand même des étrangers euh, résidents au Sénégal donc qui sont qui aujourd'hui des des compatriotes parce que ils vivent avec nous au Sénégal et vraiment li ñaan ñaanal wér yàlla def na benn cas bi moom wér na gis naa sax ce matin ndeysaan euh, muy def témoignage et le français def témoignage vraiment dafa si ni ko Sénégal vraiment euh, jàppale des trois cas ñu ñaan aussi trois cas yi tamit yàlla def na mu def ci sutura ñu gis tamit engouement bi ñu ci def muy état bi di population di di autorité yi ñëpp dañ ci jóg taxaw ba ci religieux yi ñaan yeeg ñëpp ñu jóg gis nañ ne que yàlla ñu ngi def sutura et euh, président aussi def ci grande responsabilité ndax euh, comme ni nga ne rek xam nga li ma ne waxoon naa ne la femmes yi ñoo yor lépp lépp mooy femme xam nga tey coronavirus bi mu ñëwee tey ñu daje 8 mars 8 mars ñoo woon la femme dans toute sa grandeur mais euh, am solo dafa am santé si dafa am solo donc président bi comme te dañuy bañ nit ñu bari actuellement boo xam ndeysaan pour préserver la population et préserver les citoyens et assurer la sécurité parce que moo gën a wóor mu annuler un grand événement bi nga xam ne mun naan def ci la journée de la femme mën na def plus sortement possible parce que bu benn risque boo xam ne dina dal Sénégal yi ñu koy saluer si loolu. waaw Fatou kontaan na si yow vraiment di souhaiter bonne fête à toutes les femmes sénégalaises bu ñu ko waxee toutes les femmes africaines les femmes du monde. waaye nag di beneen loxo nag les femmes socialistes waa parti socialiste di jiital Aminata Mbengue Ndiaye mi nga xam ne mooy suñu tey suñu secrétaire général di suñu présidente di ci boole nag parce que man dama nekk Dakar Plateau nekk conseil municipal Dakar Plateau bokk ci bureau bi bonne femme à toutes les femmes de Dakar Plateau bonne fête à tous Voilà, mais souhaiter une bonne fête euh, à toutes les femmes du monde, à toutes les femmes africaines, mais aussi à toutes les femmes sénégalaises. Je souhaite une bonne fête à ta et c'est tout maintenant. Bonne fête à toutes ñu ñu ñaan yàlla na fekkee ko ay at yu bare bare bare bare bare bare bare waaye nag euh, di du ma fàtte ñu kal nag sama rakk bu baax jooju madame Dieng nga xam ne mooy jaay yu baax yi robe yu baax yi. mooy def yu baax yi make up bu baax rafet sañse bu rafet ko bëgg rek numéro bi benn la 77 746 59 02 madame Dieng sama rakk jooju sa si man rek te rëkku ma maa ngi koy souhaité moom tamit une bonne fête jàmbaar la jigéen bi jàmbaar la xale la waaye macha allah dafay góorgóorlu une bonne fête à maman ma chérie commencé na bu ñu may dégg mi ci kër ga maa koy souhaité tamit une très bonne di ñaan yàlla ñu fekkee ay 8 mars yu bare bare bare bare bare la la la la la la la la la la la la la la la la la la